ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di gërëm suñu sëriñ Maulana Cheikh Ahmed Tidiane di gërëm ki nga xam ne mooy seen xalifaan la itlaaq cheikhul islam wa saadatul anam Maulana Cheikh Ibrahima Niass ñu wax jërëjëfe Baye Niass jërëjëfe Baye Niass ñu ngi ndokkeel suñu mbokk ci yàlla suñu wóllëree suñu àndandoo ci yàlla euh, Baye moo Gueye ci jotaay bi nga xamante ne mayaat nañu ko ci pàkk bi waaye ci ron xayma bu barkeel bi itam ñu war fee dajeeg wali yàlla yu sell wali yàlla yu tedd jóge ci barab yi fasanti ko waaye di ci jiital suñu sëriñ suñu wasila suñu murabbi Sidi Moolaaya Baye Ousmane Dieng di ko ndokkeel di ko ñaanal yàlla ci yitteem bu kowee ci Mawlana Cheikh Ibrahim ak liggéeyam bu yaatu ci Mawlana Cheikh Ibrahim lii nekk benn kër ci këram yi walla benn néeg ci këram gi e, te mu am fii ku barkeel mu bàyyi fi ku barkeel mooy bàyyi Modou Gueye ñu ngi koy ñaanal yàlla mission bi yàlla na yàlla àggale ko ci jàmm Baye Mood waxoon na ne nañ waxtaanee euh, Mawlaaya Cheikh Alassane Deme radiallahu anhu euh, waxtaanee Ceerno san dem nag dina yomb ci buñ jëmee waxtaanee li nga xam ne moom mooy zaahiram waaye suñu naree dugg ci baatinam nag dina nekk duñu jafee ndax du wali boo xamante ne Euh, dañ koy xam lu tax ma ne du wali bu ñuy xam ndax dafa bokk ci wali yi nga xamante ne yii walla yàlla dafa wax ne wali yàlla yépp sama ron keppaar lañ nekk kenn xamut leen ku dul man loolu nag su ko yàlla waxee te Mawlaa Cheikh Al dem kenn la ci wali yàlla yooyu kon waxtaanee ko dina jafe ci xaqiqatu maqaamam muy kenn ci eh, asxaabu Mawlana Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Niass waaye ci ku baraaw yi itam la bokk kenn ci saabaay Mawlana Cheikh Ibrahima yi waaye bokk na ci ñi gën a mag tamit mu nekk koo xam ne dégg nga yàlla moo ko may cër bu kowe waaye mu nekk borom yitte bu kowe tamit moom Mawlana Cheikh Alsane Deme wala Mawlana Cheikh buñ naree waxtaanee ci Cheikh dem Dème dinañ wax bayit bu bàyyi woyoon ci xaqu Cheikh Tidiane dinañ ko wax ci xaqu Mawlana Cheikh Ibrahim tamit bàyyi ba muy woy Cheikh Tidiane dafa wax ne lahu saxbun ka aqmaarin zawu fatxin wa asraarin wa tamkiinin wa anwaarin fa kullun aynu ayaanin mu site ci nag ñi nga xamant ne ci kibaaru sahaaba yi la bokkoon ci Mawlana Cheikh Tidiane mooy Seydi Ali Harazim Barada ka xaawi sabqi Harazim maa damrawi lxaatim wa najli lmishrid alalim fala laahin wala waanin dama déglu benn bis oustaz Mahmoud eh, eh, Barham Diop mu ne Seydi Ahmad Sukayrij su fekkoon ne dafa tombeek jamono ak Mawlana Cheikh Alassane mu ne dina ko boole ci asxaabu Cheikh jaani yi nga xam ne ñoom la def seeni manaqib ci kashful hijab nga xam ne kashful hijab téere la boo xam ne Seydi Ahmad Sukari ji moo ko taalif waaye mu dugal ci walla mu indi ci lu bari ci saaba Cheikh Tidiane radiyallahu anhu naka noonu te taalif na beneen téere bu ëpp kashful hijab mooy rafu niqab dégg nga boobu itam li ci nekk ci saaba Cheikh Tidiane yi kenn xamul ni mu toll Oustaz Barham Diop mu ne su fekkoon ne eh, Seydi Ahmad Sukari daje naag Mawlaa Cheikh San dem ci jamono mu ne kon faw mu boole ko ci ci biir téere yooyu noonu kon kooku nekkul ku ndaw ku liggéeyal tariqa bi la ba addina bi yëpp xam ko radiyallahu anhu waaye mu yaroo ci ron Mawlana Cheikh Ibrahim dégg nga xaq bi bàyyi waxoon ci saaba Cheikh Tidiane yi loolu feeñ ci moom laxu sax bun ka ak maarin moom bàyyi amoon na ay saaba moom itam sahaaba mi comme ay dégg nga weer dégg nga zawu yin wa asrarin boroom fattu lañ woon ñu amoon fattu lañ ci yàlla ñoom ñépp koo ci waxtaanee rek da nga naan kii rek la bàyyi def ci moom wilaayatu waaye bokk na ci ñoom Mawla Cheikh Sène dem dégg nga radiyallahu anhu Cheikh Sène moomu nag moom la jaaraat ci taarixam taarixam boo xamante ne moom moo ko nettalil boppam dañ ko laaj te ki ko laaj mooy taalibeem Seydi Jibril Bokum moo ko laajoon ne ko Cerno naka nga ñëwee ci Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu avant muy wax nag ni mu ñëwee ci Cheikh ci la doon waxtaanee moom Mawlaa Cheikh San Dem mooy kan mu ne Cheikh San Dem radiyallahu anhu kenn la ci xulafaa u Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu comme ni ko waxee dégg nga waaye mu nekk koo xam ne yàlla daf ko may yoon bu gaaw ndax bu ñuy seet e, bokk ñuy jiitu Cheikh Ibrahim ndax e, bi muy ñëwat ci baay fekk na faydu bi tàkk na lu yàgg jaamu yàlla yu bari itam aw nañ ci waaye tey dem na ba bàyyi jiiñ ko kenn ci eh, eh, as eh, maanaam ku baraaw asxaabam yi ne su fekk ne njortu na mu donn maqaamaam te mooy Serigne Ousmane Ndiaye mu nekkoon koo xam ne wali bu mag la woon ku jege woon Cheikh Ibrahim koo xamante ne léppam la joxoon Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim seede ci moom ay xam-xam yu kowe kowe radiyallahu anhu waaye li ci gën a yéeme mooy bàyyi li mu wax ne njort na Thierno Assane Deme doon na maqaama sëñ Ousmane Ndiaye mooy boo xoolee mbindu Thierno Assane Deme ak mbindu sëñ Ousmane njaay boo ko liiree mënoo ko xàmmee danga yaakaar ne benn jëmm ji moom moo bind ñaari téere yëpp loolu nag mu nekk lu doy waar nga xam ne dëgg-dëgg li olof yi di wax ne sàmmkat mbott moo xam dégg nga euh, euh, ba cey soox euh, moo laa Cheikh Assane nag ba muy nettali ci mbindum Seydou Mawlana Cheikh Mouhamad Dramé lum njëkkee mooy wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis kon nga xam ne kii di wax waxut ngir tiitaru waaye waxut ngir ku ko yéem waxut itam ngir ku am euh, foo koy teg waaye dafa wax rek ngir santeeku boromam ci xéewal goo xamante ne boromam xéewalee nañu ko radiyallahu anhu moo tax foofu la njëkkee waxam wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis mu teg ci ne wa qaala alayhi eh, salaatu wasalaam afala akunu abdan shakuran mu ne yonent bi sallallahu waxoon na ne xanaa duma nekk jaam buy sant boromam kon moom laaj biñ ko laaj mooy kan ak li ko indi ci Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu moom daf koy waxtaanee ngir sante ko boromam waaye du daf koy wax ngir tiitaroo ko ndax amaan naam am na ñu bëri ñoo xam ne bu ñu wax ci seen bopp dañuy wane seen bopp ngir ku leen yéem waaye Ceerno radiyallaahu anhu la mu wax ci boppam ak lim nëbb ci boppam moo ëpp fuuf la nga xamante ne moom la wax yaa ngi dégg radiyallaahu anhu te gis naa ay lettres yoo xam ne ay waaridaat la ci moom musuma gis benn yoon ñu def ko ci benn téere boo xam ne dégg nga moom moom moom moom Cerno bind na ko radiyallaahu anhu te mu nekk ay mbir yu yu doy waar dégg benn bi mu ne xanaa duma nekk jaam buy sant sama boroom mu ne maa ngi wax ci sama soobu ci sàkku xam-xam waaye ci àgg gi nga xam ne itam àgg naa ko ci moom mooy àgg na ko ci xam-xam loolu nag àgg gim àgg ci xam-xam dëgg la àgg na ci xam-xam moom Cheikh Alassane Dème da doon wax ne al ilmu ilmaani ilmun mawhubun wa ilmun na Ceerno radiyallahu anhu mu ne xam-xam ñaari xam-xam la mu ne xam-xam bii dañ la koo may mu ne xam-xam bii da nga koo jàng dégg nga te loolu mooy dëgg boo demee ci bàyyi itam mi nga xam ne moo doon sirru xaatimatu wilaayatu muhammad yi loolu la wax xamaltu sirra xaatimal wilaaya waaye lu mu wax jamaatu bayna dawqi wa diraaya jamaatu bayna dawqi wa diraaya man maay kii dajale xam-xam bu ñuy mos ak xam-xam bu ñuy jàng xam-xam bu ñuy mos nag loolu mawhubun la lu ñuy maye la waaye xam-xam bu ñuy jàng nag loolu maqruun la loolu moo tax ceer na mu ne ñaari xam-xam yi ñoo am mawhubun wa maqruun xam-xam bu ñuy maye ak xam-xam bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy jàng xam-xam bu ñuy maye nag li ci gën a bëri wali yàlla ñi koy jot ñooñu leen tuddee as-siddiqiyun dégg nga wali yi siddiqiyu moom la sufiyanke yi di wax ne walladi yaxudu al ilma min allahi bila wasitatin wali yu siddiqiyu mooy koo xam ne mu ngi jëlee xam-xam ci yàlla direct sans intermédiaire ñooñu nag seen imaam mooy Seydi Xudar dégg nga alayhi salaam dégg nga mi nga xam ne yàlla moo wax ne wa allamnaahu min ladunna ilman man maa xamal xudar xam-xam bu jóge ci man direct wàcc ci ci moom dégg nga ñooñu lañ tuddee siddiqiin dégg nga day gis ne moo laa Cheikh seen dem yàlla may na ko loolu dégg ci ci ron sëriñam waaye gannaaw ba mu dajee itam aji mat ak jamono koo xamante ne wax na ne moom mooy jëmmi xam-xam xam nga am xam-xam ak nekk jëmmi xam-xam bokkut bàyyi nag dafa nekk jëmmi xam-xam jëmmi xam-xam du kenn ku dul yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyi nag donn gi mu donn mbóot moomu moo tax mu wane ne moom mooy jëmmi xam-xam boobu noonu wala abdu qad laqiya ayna al ilmi wa jaahu al iznu bi duni wahmin radiyallahu anhu kon su fekkee ne na wax na ne mu ngi dox di wuti xam-xam ak mu dem ba àgg ci xam-xam bi dëgg-dëgg àgg gi mu àgg ci xam-xam bi mooy àgg bi mu àgg ci Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu parce que Cheikh mooy jëmmi xam-xam dégg nga na moom mu ne radiyallahu anhu mu ngi juddoo mu ngi gane si àddina ci dëkk bu ñuy wax Sinthiou Dangde Sinthiou Dangde ca Fuuta ca Podor dégg nga radiyallahu anhu ci 1920 kon gis nga kooku diggante moom ak Cheikh Ibrahim li ci nekk ci différence ci ay at 20 ans bàyyi màggee na ko vingt ans mu door a gane si àddina 1920 ci la Thierno radiyallahu anhu gane si àddina kon Thierno ba mu amee 29 ans ba mu amee euh, euh, bi faydu bi tàkkee booba Thierno mu ngi am 9 ans kon xam nga faydu bi yàgg naa tàkk yaa ngi dégg te Thierno ñëwagut parce que 1920 la gane si àddina te faydu baa ngi tàkk 1929. kon booba Thierno mu nga am 9 ans gis na kon kooku dëgg-dëgg eh, ànd naag ndimbalal yàlla gis nga daje naag kii doon wax ne tawaytu wa sahaltu tariqa ila alxaqi li kulli muridin alwaslu lil bi bil xaqi lem naa yombal naa yoon wi jëm ci dëgg Thierno ba mu dajee kooku rek yaa ngi dégg gis nga daw na daw bu gaaw yaa ngi dégg parce que àgg na ci dayo xam-xam foo xamante ne dëgg-dëgg ku ànd ku àndul ndimbalal yàlla dégg nga munoo munoo munoo am loolu radiyallahu anhu na moomu nag ci miladiya 1920 la waaye ci hijriya mu ngi gën si àddina dégg nga alfun wa salaasa mia dégg nga wa arbaine mooy 1340 hijriya ci la gën a si àddina loolu nag moo tombeek chamsun chamsun mooy jant dégg nga boo ko déchiffré mu jox la 1340 radiyallahu anhu at moomu ci la juddu dégg nga ci la ñuy jàngal nag ñun ñu xam ne xam-xam juddu na parce que jant bi mooy dëgg-dëgg xam-xam dégg nga loolu la bàyyi doon woyee ci xaq yonant nuuru shamsin tabazaxat inna shamsal mustafa sha'sha dalaama dalaali dégg nga nuru shamsin leeru jant bi tabazaxat ceeñaral na tas na bàyyi mu ne inna shamsal mustafa dégg nga naka jant yonant bi sallallahu alayhi cha cha dalaama dalaali dégg nga mu ne leeral na ceeñeeral na yaa ngi dégg lëndëm ak réer kon jant boobu liñ ci jublu woon yépp mooy xam-xam moolaa Cheikh Sane Dem moomu nag radiyallahu anhu jëmmi xam-xam la woon dégg nga boo xam ne dégg nga kenn weerantiwut xam-xamam yaa ngi dégg ci ko njëkk a seedeel mbokkam ci yàlla mooy Seydi Moolaa Cheikh Omar Touré mi nga xam ne moo waxoon bàyyi ne ko xam-xam bii euh, tukulóor bii mu ngi làngoo làmboo ak ay xam-xam yoo xam ne kii ëpp naa bàyyi mu dem ñibbi parce que gisuma toogaayu kenn ku gën toogaayam fii ci sa Medina gi yow bàyyi kon nga gis ne radiyallahu anhu jëmmi xam-xam la woon dégg nga moom moo laa Cheikh Alassane kan mooy kooku mu ne mooy Cheikh Alassane Dème bun Mouhamad dégg nga euh, Alfouti dégg nga euh, euh, bun Samba Moussa dégg nga bun muusa Samba Ali dégg nga radiyallahu anhu loolu mooy askanam ci wàllu waajuram bu góor mooy muham mooy asan dem dégg nga wala si asan dem radiyallahu anhu doomu euh, muhammad samba moussa dégg doomu moussa samba doomu aali si asan dem mu nga askanoo ci fami boo xam ne boroom xam-xam lañ gis nga boo ko xoolee dafa xaw a nuroo foofu itam ak taarix ak Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu Cheikh Tidiane yi moom itam cosaanam ay boroom xam-xam lañ dégg nga rawatina waajurum buur dégg nga Seydi eh, eh, eh, Muhammad dégg nga nekkoon na borom xam-xam borom wilaaya boo xam ne wax nañ ne dem na ba daf doon jàngal ay jinne ci biir néegam yaa ngi dégg daan na bëri itam lu mu dàq jinne yi naan leen génn leen sama néeg bu leen dox sama digganteeg sama boroom yaa ngi dégg da gis na itam moo daa Cheikh Anta Dem yàlla loolu la ko sédd ci euh, famille mu ne maamam boobu euh, mooy nga xam ne moo jóge ko woon ci dëkk bu ñuy wax Umme Haayre Dëmb Umme Haayre Dëmb bee boo demee mu ngi ci yoonu Kanel dangay romb Kanel yaakaar naa ci lu sori da nga nga door a gis dëkk bi wala nga door a gis tableau bi jëm ca dëkk ba daaw romb naa foofu foofu nag wax nañ ne ñu lu gën a bëri ci ñi sant dem dégg nga foofu mooy seen cosaan xam naa na max mu dem mun nañu mën a leeralal ci loolu moom waaye gën a bëri ci ñi sant dem foofu mooy seen seen seen cosaan radiyallahu anhu mu ne maamam boobu nag moo jóge ko woon foofu ci dëkk boobu mu dem ci saaxil bi mu dem ci Mauritanie sàkku ji xam-xam dégg ak jàngal Alxuraan tamit dégg nga mu dem ba yàlla may ko mu mokkal Alxuraan dégg nga mu nekk koo xamante ne ku ñëwal la ci xam-xam dégg ginnaaw ba mu wàccee Mauritanie dégg nga ci la ko yàlla indee itam dégg nga ci suufu Halebe Halebe nag tund la comme ni ngay waxee euh, euh, euh, Saalum comme ni ngay waxee. siin comme ni ngay waxee nangama nangam xale bi ñoom noonu la mel dégg benn tund la boo xam ne bu na ci diggante Mauritanie ak yaa ngi dégg loolu yëpp ci ardu aleene dégg nga ci la bokk maamam boobu nag bi mu ñëwee mu ngi ci mu ngi la mu ngi wàcc ci dëkk boobu ñu wax Aéré Lao Aéré Lao mu ngi yoonu euh, Fuuta bi moom itam boo fekkee ne am nga ci côté Ndar dégg foofu nga gisee aar laaw ci yoon bi foofu la maamam boobu noonu dëkkoon radiyallahu anhu foofu nag nga gisee giir yooyu nga xam ne ñoom lañ tuddee ba tey xale de ba tey giir la non seulement dund la itam waaye giir la giir boo xam ne euh, mus na am benn at ma ñëw ci dëkk bu ñuy wax Golleere mooy dëkk ñoom Thierno Mamadou Deme yàlla def ñu fanaan benn tuuti ah biñ ma lanloon ci kaw terrasse bi ma gént am ku ma wax ne ndax bëgg nga ma wan la bàmmeelu yonent yi nekk ci xale bi kon mosuma dégg xale bi mosuma xam xale bi jour boobu laa ko door a dégg ci gént après ma yeewoo ci laa laaj Seydi Aline Kare ma ne ko xale bi mooy lan ci la ma expliqué mu ne ma xale bi giir la mais en même temps itam dund la lu ko commencé aéré law fii ba nga dugg bokkee ci xale bi la bokk mais giir la itam ma ne ko man damaa gént ñu ne ma xale bi dafa am ay bàmmeelu yonent yi kon nga gis ne giir la koo xam ne moo laa Cheikh Sane dem ci la bokk ñu foor lañ yaa ngi dégg ci dund nekk radiyallahu moom maamam boobu noonu bokk ñi nga xam ne ñoom ñoo njëkk a sanc tudd woowu moom moom maamu moo laa Cheikh Sane dem boobu noonu mu nekkoon koo xam ne borom xam-xam dëgg la woon bu àdduna bi yëpp seede xam-xamam radiyallahu anhu boo bu jigéen mooy Seyda Fatima doomu euh, euh, Eliman Boyel moom moo nekkoon waajuram bu góor doomu Eliman Boyel doomu Eliman Omar Abdou Tafsir doomu Tafsir Omar Kelli dégg nga ñu ko amee moom itam ci wilaayam kawe yaa ngi dégg nga xam ne daan na kii daan feeñal ay karaama moom itam dégg yaakaar naa moo nekkoon maamu Cerno Safar bi nga xam ne moo ëmboon safara si ba mu bëggee sañ ci dëkkam dégg nga ci une semaine mu ngi ëmb safara si ci yére bi te yére genre dex bu ñuy wax luggee soo demee ci àll bi di ci gën a bëri luggee mooy foo xamante ne nawet su jotee dafay tàndox ndox mu baree baree baree bari waaye su noor ñëwee day gis ne ndox mi dafay dem dafay ñiis foofu dafay wow bu woowee suufu ban moo fay nekk li ci gën a bari dégg garab garabu kii ñoo fay nekk garabu eh, eh, eh, nu ko olof yi tuddee garab yooyu nga xam ne dañuy am jig dégg nga ñoom ñoo koy faral di bëri dégg loolu mooy eh, eh, Lukke Ceerno radiyallahu anhu bi mu ñëwee ba foofu nag mu ne ci la gis dégg ndox génn mu ne ndox moo xam ne dafa weex mu ngi ci benn pax moo xam ne pax mu xóot la dégg ndox mi di ball rek mu ne ndox maa ngi mu jël loxoom tànk ci ndox mi mu naan mu ne naan na ci ñetti ñetti góor dégg dafa tànk ci ay loxoom naan mu tànkaat itam naanaat mu ne mu tànkaat naanaat mu ne wala gëtu kal asali mu ne neexaayu ndox mi mu ngi mel ni eh, lem ndax ci neexaay loolu nag sut Cheikh Tidiane radiyallahu anhu da daan fari faral di wax ne ndox soo ko gisee xamal ne nguur la walla xamal ne xam-xam la radiyallahu anhu kon Ceerno bi ñu gisee ndox moomu rek dégg nga ci la waroon a xam ne dëgg-dëgg dégg nga li moom xam-xam mu ne bi mu jëlee ñetti guux yooyu mu naan ko ba noppi mu ne arabtoon an an urabaa mu ne ma bëgg ñeenteel dégg nga mu ne ndox mi nag dégg nga fa idal ma adab dégg nga mu ne ndox mi nag daal di dem bi ndox mi demee wa taajabtu min hada mu ne mu yéemu nag ci mbir moomu parce que ndox moo xam ne dafa jékki-jékki rek ci jamonoy noor dégg nga lépp ngi wow mu jékki-jékki ba gis pax bi di génnee ndox mu ne mu naan ci ndox moomu ñetti góox bëgg a ñeenteel mu jékki-jékki ba yàgg rek gis ndox mi dem na loolu xaw koo jaaxal lool lool lool radiyallahu mu ne mu dem nag nettalil ko yaa ngi dégg maamam muy Moussa Samba Kelli mu dem nettalil ko xissa boobu noonu bi ko waxee Cerno radiyallahu anhu mu ne maamam boobu kaanamin mina saalihin bokk na ci nit ñu sell ñi mu ne mu mu wax ko maamam bi ne ko dégg nga uxruj ila talabil ilmi génnal ci nga dem sàkku ji xam-xam mu ne ko tajiduhu bila taabin soo génnee sàkku ji xam-xam di nga ko am ci lu dul coono gis nga kon ndox moomu li mu tegtale mooy xam-xam Cerno radiyallahu anhu mu jóg ngir wuti xam-xam boobu noonu moo tax mu ne ci at moomu ci la tukki dem wuti xam-xam yaa ngi dégg ci euh, kattanal yàlla yaa ngi dégg subhanahu wa taala mu ne mu daal di tàggu waajuram bu jigéen mu daal di tàggu waajuram bu jigéen ci digg guddi mu ne bi mu tàggoo waajuram bu jigéen mu ne waajuram bu jigéen bi radiyallahu anhu jàpp ci boppam bi dégg ñaanal din ko ñaanalee mu teg ci ne wa kaanat min as-saalihaat yi mu ne yaayam bokk na ci saalihaat yi wax na dëgg ndax ku xam askan bi eh, yaayam bokk dëgg-dëgg war na mën a nekk lu dul ku sell dégg nga anha moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danaan wax ne su ngeen di wut soxna wut leen ko ngir ñeenti yi dinañ takk soxna ngir dafa rafet dinañ takk soxna ngir dafa am wërsëg dinañ takk soxna ngir dafa bokk ci askan bu yaatu waaye dinañ takk soxna ngir dafa am diine yonent mën a ñàtt yépp mën na ñàkk sax mën nga takk soxna koo xam ne rafetul mën nga takk soxna koo xam ne wërsëg bi bëriwul mën nga takk koo xam ne itam bokkul ci askan bu yaatu yonent mu ne waaye ku takk koo xam ne amul diine ne waxtu woo takkee ko amul diine dóor nga sa loxo ci suuf sallallahu alayhi wa te gis na kon kii soxna sii dégg amat borom këram bu toll ni moo laa Cheikh Sante radiyallahu anhu waaye xoolal nim jëflante ak doomam bi doomam ñëwee ci moom la ko damaa bëgg a mu ci xam jàpp ci bopp bi ñaanal ko bi mu ko ñaanalee ba noppi bi mu ko ñaanalee mu jàng suratul qadri mooy inna anzalnaahu fii ba mu jeex ñetti yoon dégg nga mu tëflil waaye mu tëfli ci weenam te booba Ceerno mag la dégg nga yaayam def lii ñetti naan de l'amphithéine ak bi ci weenam mu jox ko ne ko na loolu dara bu mag la boo demee naan de l'amphithéine ak bi dafa bokk ci atrabu Tijaani yi dafa bëri woon liñ ko daan jàng waaye wax nañ ne tamit ñaan boo koy tëjee yàlla dafay nangu ñaan boobu moom ndax barke gi barkeel moom ñaan du la dégg waaye yaayu Cerno loolu la jàng ci weenam jox ko Cerno radiyallahu anhu dégg nga na ko nàmp ginnaaw ba mu ko nàmpalee loolu dégg nga mu ne ko demal mu ko ko ci yow incha allah loolu nag du dem ba sa waajur du jigéen garanti la garanti la loolu dëgg-dëgg jot nga si càkkuteef loolu na ci bàyyi xel mu ne moom itam mu sant yàlla lool yaa ngi dégg mu am xol bu bég mu kontaan lool ci li nga xam ne jëflante na ko ak waajuram bu jigéen loolu lu bàyyi xel la waajur bu jigéen du caaxaan waajur bu jigéen boo xam ne du mooy yàlla foo ko fekk itam mu ngi jaamu yàlla kooku lépp lu ci moom bu ko ñaanalee doomam yàlla daf koy def loolu na ci jigéen ñi bàyyi xel dégg nga nekkul nekkul caaxaan waajur bu jigéen nekkul caaxaan Ceerno radiyallahu anhu jàngam ci Seydi jëlee ko foofu nag mu dem ca dégg nga kanel dégg nga foofu la jàngee xam-xam ci Seydi Suura euh, euh, euh, dem foofu la jàngee xam-xam mu nekkoon wali boo xam ne moom itam jàmbaar la woon koo xamante ne Ceerno ni mu ko bak bakkee mooy dégg nga kaana aaliman dégg nga mutabaxiran bil fununi dégg nga wa saalihan jalilan wa waliyan kaamilan dégg nga mu ne wa ismuhu Ceerno Saydu Shu'ara dégg nga radiyallahu anhu mu ne borom xam-xam la woon moom Saydu Shu'ara borom xam-xam boo xam ne dégg ku géeju woon la ci mboolem fànn yi yaa ngi dégg yàlla màggaloon la wali la woon ku mag dégg nga radiyallahu anhu moom Ceerno Saydu Shu'ara mu ne mu jàng ci moom dégg lu gën a bari ci fànnu xam-xam. moom moo laa Cheikh Sane di radiyallahu anhu te loolu Baye seedeel na ko ndax Baye mos na seede ci Thierno ne lu dul xam yàlla dégg nga def ma ko ci moom loolu Baye seet na ko ci moom kon wane na ne ba mu ñëw ci Baye jàng na mbooleem funu ni ci xam-xam te noonu la ko ci xam-xam dégg fi xan wa luxatan wa naxwan wa usulan dégg wa maani wa bayaanan wa badian yooyu yëpp. jàng na ko ci sëriñam dégg nga Seydi Suhra dem radiyallahu anhu mu nekkoon koo xam ne dégg borom borom may la woon waaye mu nekkoon taalibe boo xam ne ku nangu woon la moom Thierno Sandel gis nga defar nit jafewut dama koy faral jox mbokk taalibe li jafe mooy ki la jox boppam ki jox boppam moo jafe waaye defar nit jafewut Cerno bi ñëwee ci Seydi Shuara dafa def li Sufyaan koy tuddee salbu iraada dafa rek ki mboolem namm nammam moom amatul bëgg-bëgg amatul namm namm amatul dara lu mu jublu lu dëkk dégg nga xidmaal seen ñëpp Seydi Shuara dégg nga radiyallahu anhu moo tax mu ne wa xaddamtuhu xidmatan taammatan dégg nga liggéeyal naa ko liggéey boo xam ne bu mat la jox ceeb sufiyanke yi waxoon nañ ko xidmatul muridu sulamul muraad taalibe su bëggee jot càkkutéefam nay liggéeyal sëriñam parce que liggéey bi muy liggéeyal sëriñam mooy échelle bi muy jaar pour jot càkkutéef te loolu teeru sufiyanke yi jàngale nañ ko miraaran ci benn waay joo xam ne li nekkoon pas-pasam mooy àgg ci yàlla muy dem ci benn dëkk dégg nga mu dégg fa wali boo xam ne dafay àggale ci yàlla dégg nga mbir ñëwee ba ca dëkk ba yàlla def dégg nga yàlla boole ko ki nga xamante ne moom mooy mandikatu dëkk ba te ñoom ak moom ak wali boobu ñoo bokk même tur dégg nga muy laajte wali bi dégg nga bi ne ko man la mu ne ko man damaa bëgg àgg ci yàlla mu yóbbu ay plante soble yaa ngi dégg jardin bi mu ne ko dee sikar yaa basalu yaa basalu jël yaa basalu mooy soble basalu mooy soble dégg nga waa ji nekk ci rek ak pas-pas bu dëgër yaa ngi dégg di sikkar yaa basalu yaa basalu dégg nga ba yàlla may ko fattu jour ba mu amee fattu la kabar jour boobu la xamee ne moom ki ko jox askaaru tarbiya ne ko del sikkar yaa basalu dégg yàlla bi wali yàlla bi mooy ko nekk ci biir dëkk ba mu génn àddina dégg nga moom mu dund ko direct yaa ngi dégg ci gàttal gis bi kon nga xam ne dëgg-dëgg pas-pas la taalibe war a demee te Baye wax na ne wala nga itaqat ca alaaha jariñ la na faat Baye mu ne sa pas-pas bu dëgëree même bu dee ci xeer daf lay jëriñ waaye léegi da ngay gis ne pas-pas yi dafa desee dëgër dafay desee dëgër sama genre taalibe yëpp bokk na ci li ñu suñu pas-pas li ñu gën a yàqal mooy yàkkam ci yàkkam ci euh, suuf yi dafa mos a ñëw ci benn sëriñ di ko laaj ci la la adam ne ko damaa bëgg nga dimbali ma ci mu ne ko dinaa ko jox waaye ci condition nga toog liggéeyal ma mu ne nangu na liggéey mu nekk di ko liggéeyal mu koy liggéeyal ba benn bis nag wali yàlla bi di ko testé yëkkati benn kees daaj benn janax ci biir kees gi jox ko ne ko dama bëgg kees gi nga yóbbul ma ko ca dëkku sàngam ah mu jël kees gi di dox ak moom waaye janax bi nekk ci biir kees gi di kurti kurti rek loolu nag mu dañ kumpa lool ci loolu mu ne sëriñ bi daal li mu dugal ci biir kees gi moom ma faw ma xool ko yàlla def yàlla natt ko mu dajji kees gi ba mu ko dajjee rek janax ba tëb rek dugg ci àll bi mu topp ko ba sonn dégg nga janax bi ne mër mënatu koo gis mu dellu ci sëriñam hésité wut mu ne sëriñ bi dëgg-dëgg janax ba ma joxoon ca kees ga dem na sëriñ bi ne ko noo xamee ne janax moo nekk ci biir kees gi dégg nga mu ne ko kon yow xamal nga ne ma dëgg-dëgg doo denckatu secret te dëgg-dëgg ismu la azam kuñ koy xamal moo koo xam ne denckatu mbuut la nga gis ne moo laa chel san dem moom noonu la meloon ci diggante moom ak sëriñam Seydi Shuara yaa ngi dégg radiyallahu anhu daan na wax ne Seydi Shuara daf ko bëggoon dégg nga mu ne daf ko bëggoon mbëggeel goo xam ne mbëggeel gu gu yokk la mbëggeel gu jéggi dayo la waaye dëgg-dëgg taalibe koo am taalibe bu mel noonu dafa lay bëgg danga koy bëgg parce que taalibe boo xam ne dafa jël léppam mu far ko jël léppam itam jébbal la kooku doo def lu dut yaa ngi dégg yow itam nga jox ko li nga xam ne moom moo nekk ci yow ci xam-xam ci lu mu mën a doon dégg nga radiyallahu anhu mu ne ci moom ci Seydi Shuara dégg nga ci la jëlee xam-xam yu bari mu ne waaye ci la amee itam lu gën a bëri ci asraaru tariqa bi yaa ngi dégg foofu la ko amee dégg nga mu ne ak yeneen asraar yoo xamante ne dégg nga asraar yu tumuranke la radiyallahu anhu te loolu itam sëriñam Mawlaa Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu seedeel na ko ko mu ne saxabtuhu dégg nga naxwa arba ashara sanatin mu ne ànd naag moom moom Seydi Shuara mën luy dem ci fukki at ak ñeent yaa ngi dégg ànd naa ko ak ak moom mu ne eh, wa kaana daiman yanzuru ilayya tawilan wa yaqulu li arju min allahi an tajida alfatxu da nga aw fatxa mi fi lurumi wal wusuli ila llahi mu ne seydi shuara daf ko daan xool xool yu yàgg moom Thierno daf ko xool lu yàgg naan ko maa ngi yaakaar ci yàlla ne di nga am fatxu yaa ngi dégg ci xam waaye di nga àgg itam ci yàlla xoolal lii lañ seedeel Ceerno te boobu mu ngi nekk ndaw te pourtant loolu moo nekkoon bëgg-bëggam waaye xoolal li ko sëriñ bi ma mëbëtal xoolal li ko sëriñ bi bëggal waxtu nekk taalibe sooy ànd ak sëriñ te naxoo sa bopp waxuma naxoo sëriñ bi boo naxee sëriñ bi mënoo nax sëriñ bi sa bopp ngay nax waaye naxoo sa bopp nga jël sa lépp jébbal sëriñ bi nga mel ni li bàyyi waxoon kun ka maytin dawaa man tux biri dégg nga te loolu nag sama genre yëpp bayit boobu te ñu ngi koy ñu ngi koy noggatoo gone yu bëri dégg nga kun ka maytin kun su fekkee ne doo Cheikh Ibrahim su babaa kun ka maytin gi tamit dafay xaw a dafay xaw a dafay xaw a metti parce que Cheikh Ibrahim rek moo yeyoo dégg nga kun maytin moom rek moo yeyoo nga nekk ci ronam mel ni néew yaa ngi dégg lu tax moom rek moo yeyoo nga nekk ci ronam mel ni néew parce que mooy ki nga xam ne mooy jëmmi xam-xam te mooy ki nga xam ne xam-xam mooy jóge ko ci pi yàlla bi direct wàcc ci moom dégg nga kooku la ñuy wax ne nanga mel ni néew ci ronam dégg nga kooku nag danga gis ne Ceerno radiyallahu anhu yàlla boole na ko ci sëriñ bu mel noonu mooy Seydi Sohra mu ne ko daan na bëri lu muy wax ne dafa gis Ceerno nekk ku bëgg xam-xam dafa gis cernu yittewoo itam xam-xam waaye dafa gis cernu itam yittewoo jaamu yàlla wax nañ ne cerno su jàngaan ba àllarba jot ñëpp xam nañ ne sëriñu daara yi àllarba duñ jàngale àllarba alxames ak aljuma mooy seen feet ñu ne loolu cerno daf ko doon tëju bëriwuloon lu muy bàyyi àllarba fi kanam moom cerno te fi kanam moo nekkoon àllarba alxames aljuma lu dul dafay tëju di ko jaamu yàlla mu ne soxla boobu mu gis nu am ko ci jaamu yàlla nu am ko itam ci bëgg yàlla moo tax mu ne Thierno da nga maa ngi lay yaakaaral nga am fatfu yaa ngi dégg ci yàlla waaye maa ngi lay yaakaaral itam yaa ngi dégg di nga àgg ci yàlla da nga subhanahu wa ginnaaw loolu nag moom Thierno mu ne ci la sëriñam boobu tàggu ko yaa ngi dégg mu tukki dégg nga ba muy tukki euh, mu ngi doon dem màkkatal mukarram waaye Thierno la woo mu dénk ko kër gi te pourtant Thierno nekkuloon moom kese taalibe bi ca kër ga déedéet ren biñ demee Fuuta dem nañ ba kër ga kër kër Seydi Souhara Kanel ba néeg bi mu doon nekk waaye nekk fa Cheikh Assane Dème radiyallahu anhu yàlla defal ñu fa kim kéemtaan ndax ñu fa ñëwee maa ngi ànd ak doomu Thierno Abdou Karim Sow Seydi Abdoulaye Sow Euh, ñun ñuy xaatir te xaatir yi daf ñoo dal ñun ñett ñëpp man Baye Samba Thierno Abdoulaye ñuy xaatir Seydi Chouara moom naka la waroon a mel ci xam-xam nu mu waroon a mel ci wilaaya wallahi ñu jékki-jékki ba yàgg ñu gis photoom ñu for photoom ci diggi kër gi wala ci diggi néeg bi Thierno Abdoulaye Sow mu ne eh, photo Thierno Abdou Thierno Thierno Seydi Chouara ngi nii waa këram même ñi nga xam ne fekk nañ leen ca kër ga ay sëtam loolu jaaxal leen photo bi fan la war a génnee loolu dëgg-dëgg nga xam ne kii wali yàlla bi doon dund fii borom jagle la woon ñoom nee nañ bokk na ci li leen gën a yéem ci ci ci Thierno Assane Dème du moom kese moo fa nekkoon taalibe mu ne waaye ba léegi ay taalibeem ñoom ñooy ñëw ca kër ga di ko dundal ba léegi ay taalibeem taalibe Thierno Assane Dème ñoo ñëw ci kër Seydi Shuara di ko dundal ñu ne ñoom te topp ñoon seen tànku maam ñu ci gën a bari ci ñoom ay cadre lañ français lañ jàng toppuñ seen tànku maam waaye kër gi ñu ne Cheikh Abdoul Baqi daf koo dundalaat tey dem nañ ba sampaat foofu ziyaara di ko ziyaara di ko defal lu nekk te loolu mu nga awee ci loxo da nga ci Cheikh Abdoul ñu kontaan ci loolu kon nga gis ne kóllëre Ceerno gi ba léegi mu ngi continuer di dox foofu noonu te loolu mooy dëgg-dëgg taalibe taalibe da ngay am kóllëre dégg nga kóllëre dafa bokk ci liy tegtal ne nit kii wali yàlla la kóllëre dafa bokk ci liy tegtal nit wali yàlla la bàyyi ba muy nettali xissaay Cheikh Tidiane yi bam nettalee Cheikh Tidiane ba ko waa jooju fatee ca xaymaam ba may ko mu lekk taalal ko safara mu jaaru ba fajar jot Cheikh Tidiane génn continuer tukkeem dégg nga waaye ba mu amee fatul akbar góor googu la njëkk a fàttaliku moom Mawlaa Cheikh Tidiane baa mu ne loolu mooy kóllëre mu ne képp ku ñuy jiiñu kóllëre ko képp ku ñuy jiiñ wilaaya ci amoo kóllëre mu ne sa wilaaya des na dégg nga tey taalibe yu bari ñàkk nañ kóllëre ñu bari ñàkk nañ kóllëre dañuy dem ba yàlla may leen dimbale leen mujj gi ñu fàtt sax ki leen defar bañ mën a am loolu noonu yal na yàlla musal ñu ci loolu waaye da nga gis Ceerno ku am kóllëre la diggante moom ak sëriñam mu nekkoon ndaw sëriñam dénk ko kër gi bàyyee ko dépense kër gi ci jamono jooju ñëpp xam nañ ne aji màkka jamono jooju dox la doon doon nekkul lu yomb dégg nga ci la sëriñam euh, dem waaye moom Cerno mu des ci kër gi mu ne wa makastu fi daari siniina dégg nga atawalla fi nafaqatihim mu ne mu toog ca kër ga ay at dégg nga lépp luy dépense kër gi moom moo ko yor wax nañ ne dem na ba nekk na boucher yaa ngi dégg di jaay yàpp ngir mën a indi dépense kër sëriñam yaa ngi dégg wax nañ ne dem na ba nekk jaakati guro mu leb pañe guro te kooku ba mu ko koy leb kooku sax dafa bañoon ca njëlbeen mu ne mu def yëfu taalibe ba mu delluwaatee kooku lebal ko pañe guro bi muy jaay guro gi yaa ngi dégg di delluwaat waa ji capitalam maanaam njëgu pañe bi da nga muy génne ci bénéfice bi mu am di ci def dépense euh, euh, kër sëriñam kooku faw yàlla fay ko lu tax faw yàlla fay ko parce que pas-pas la demee pas-pas la demee li bàyyi wax sa pas-pas bu dëgëree même bu dee ci xeer daf lay jariñ da nga rawatina wali bu mel ni da nga Seydi Chouhra ginnaaw ba mu génne àddina moom Seydi Chouhra ci yoonu tukkeem boobu da nga ca umundrumaan da nga foofu nag euh, moo laa sel san dem ci lañ ko ko tàgge sëriñam mu ne guddi googu nelawut guddi googu muy xalaat mu ne man ana fan laa jëlee sëriñ bu mel ni Seydi Soxra man fan laa jëlee sëriñ bu mel ni Seydi Soxra mu ne ci xam-xam mu ne ci jikko mu ne ci diine mu ne ci jublu yàlla itam sëriñ la boo xam ne ko jublu woon yàlla la dégg nga mu ne ba ma mën a aju ci kooku noonu fan laa jëlee boobu sëriñ mu ne euh, dañul di xalaat loolu moom Ceerno radiyallaahu anhu mu jékki-jékki ba yàgg rek nelaw këf ko mu ne bi mu nelawee mu ne mu nekk ci xaal boobu mu ne mu gis Chérif Mouhamadul Muxtaar mi nga xam ne moo nekkoon sëriñu sëriñam dégg nga mu ne kenn la woon dégg nga ci wali yàlla yu sell yi mu ne moom moo ko feeñu ci gént dégg nga jox ko ñetti tibbu Eh, eh, dugub mu ne dafa tibb loxom bi ba mu fees dégg mu jox ko cerno mu ne waaye dafay gunge loxo cerno ba ci biir gémmiñu cerno mu ne ko yéyal cerno di yéy dugub boobu noonu mu defal ko benn yoon ñaari yoon ba ci ñetteelu yoon bi radiyallahu anhu mu ne ci ñetteelu yoon bi nag mu ne man wali bu toll nii ma gis ko ma am mébét bu toll nii te mënuma ko wax na ma ñaanal dégg nga mu ne ci la wax dégg nga Sidi Chérif Mouhamadul Muxtaar ndax sëriñ bi dooma ñaanal Chérif Muxtaar ñaanal ko bi ko Chérif Muxtaar ne ko bi nga koy ñaanal mu ne ko lan nga bëgg mu ne ko xam-xam laa bëgg ak ak ak maarifatu billaahi xoolal xoolal ma xam-xam laa bëgg maarifatu billaahi gis nga mébét bi ko sëriñam mébétoon ba tey loolu la loolu la bëggaat ba tey loolu moo nekk ci xolam radiyallahu anhu foofu nuru na fa wax naa la ak Cheikh Tidiane radiyallahu anhu Cheikh Tidiane yi dundam bi yépp lim doon wër mooy qutbaanitul uzma qutbaanitul uzma benn bis toog na ba gént moom Cheikh Tidiane radiyallahu mu gént Seydi Abu Madiyana nekkoon wali jalil wali bu bu kawe ci maqaama Abu Madiyana moo nekkoon sëy sëriñu eh, eh, eh, ibnu arabil abu madiana moo nekkoon sëriñam kon xam nga kooku nekk ku ndaw abu madiana bi ko Cheikh Tidiane géntee mu ne mu gis muy wax ne ana kan mooy jaante ak man ma garanti la sa soxla abu madiana di wax loolu ci gént gi mu ne ci la yore ci biir gént gi ñeenti dërëm moom Cheikh Tidiane mu ne ci la gis euh, Seydi Tijaan yi mu yore ñeenti dërëm ci biir gént gi mu ne ñeenti dërëm yooyu ci la wax ne daf ko jox Seydi Abu Madiyana ngir li Seydi Abu Madiyana garanti ne képp ku ko jox hadiya garanti na la sa soxla di nga ci jot te moom Cheikh Tidiane yi soxlaam moo nekkoon am qutbanitul uzma mu ne bi loolu amee fi muy waaj joxe ñeenti dërëm yooyu mu ne ci la yeewu radiyallahu anhu bi mu yeewoo nag ci la jóg dem di ziyaara ji rawdu seydi abu madiyana boobu mu ngi yore ñeenti dërëm yi mu bëggoon a joxe ci gént gi moom la yóbbaale ci raw rawdu ba mu ne ba mu fa demee mu fekk fa benn taalibi seydi abu na kooku itam mu ngi tawassul ci seydi abu na parce que dafa amoon céet te céet bi dépense bi yépp ñeenti dërëm la woon dégg nga Ceerno radiyallahu anhu bi mu ñëwee ci rawdo bi mu fekk taalibe Seydi Abu Madiana boobu mu jox ko ñeenti dërëm yooyu noonu kooku ñaanal ko gis nga ni gént gi amee mu waafaqa bi mu ko ñaanalee Cheikh Tidiane yëg na xutbaanitul osma wala yéegut ah kay yëg na xutbaanitul osma moo tax ay jamono maqaama dañ koy jënd noo koy jëndee waaye yaa ngi koy jëndee ci xitma moo tax Baay radiyallahu anhu mu ne kam xadimin saara xutban bari na bëkk nekk wala bëri na koo xam ne xaadim la liggéey kat la mujj gi rek mu dem ba nekk xutbu te loolu Cheikh Tidiane yi jàngale na ko miraaran boo ñëwee ci Seydi Mahmoud Tunisi da nga bëkk nekk Cheikh Tidiane yi la woon ku yàlla mayoon alal ju bëri la woon ku doon liggéeyal Cheikh Tidiane yi guddam ak bëccëg am waaye bi Cheikh Tidiane yi génne àddina yàggu dara yàlla yéegeel ko ci xutbaane ci uzma mu aw ci mbedd faas yi naan laa uteeku laa uteeku attanu ma ko attanu ma ko weer la ci am mu génn àddina naka noonu Seydi Mouhamad bun Abi Nasra dégg nga ak ñeneen ñu mel ni ñoom dégg nga kon Thierno tamit yàlla may noo may na ko loolu xoolal lim liggéeyal sëriñam Seydi Chouhra waxuma Cheikh de avant mu ñu Cheikh xoolal lim liggéeyal sëriñam Seydi Chouhra radiyallahu anhu nga xam ne kon pas-pas dëgg-dëgg moom moo am solo mu ne bi mu ko laajee loolu mu ne ko lan nga bëgg mu ne ko xam-xam ak maarifatu billahi laa bëgg mu ne mu ñaanal ko après mu fàddu ci gént gi mu ne gisatut ko mu ne ci la gis Seydi Chouhra dégg nga dem radiallahu anhu mu ñëw ci melo waxambaane waxambaane bu ndaw dégg nga mu ngi sol ay yére yu vert dégg mu ne muy muuñ mu ne ko ndax gis nga Chérif Mouhamadul Muxtaar mu ne ko waaw gis naa ko mu ne ko ndax ah, ñaanal na la mu ne ko waaw ñaanal na ma mu ne ko man itam ñaanal naa la dégg mu ne ko ñaanal naa la bépp xiw dégg nga après ci la ko wax ne ko Thierno radiyallahu anhu mu ne ko waaye wala Seydi Chouara ne ko wante demal ca Maghrib maanaam demal ca soowu jant dégg nga loolu la ko wax mu ne ko eh, walakin walladi turiduhu huwa fi lmaghrib dégg nga mu ne ko waaye li nga bëgg moom mu ngi ci soowu jant Thierno radiyallahu anhu ne ko ayu maghribin mu ne ko ban ban soowu jant dégg nga mu ne ko fa qaala lii mu ne ko idhab dégg nga kawlaxin yaa ngi dégg wa ila wa ibrahim ñas mu ne laysa ala wajhi l ardi man aadama billahi minhu mu ne moom ci la ko seydi soxraane ko demal ca Kaolack demal ci alhaaji ibrahima ñas mu ne doo gis ci kaw suuf ku ko gën a xam yàlla doo gis ci kow suuf ku ko gën a xam yàlla fekk na sëriñam wax loolu lu yàgg dégg nga wa fuqtu fil irfaani man kaana yaarifu loolu la bàyyi waxoon man maa féete kaw ci xam képp ku mus a xam maa la féete kaw ci maarifatu billahi radiallahu anhu Ceerno mu ne moom foofu la déggee Kaolack musta dégg turu Kaolack foofu la ko déggee ci gént la déggee turu Kaolack dégg nga mu ne ba mu xëyee rek ci la bind lettre ci dégg nga Mawlaay Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Niass yaa ngi dégg radiallahu anhu mu ne musu koo dégg musu koo xam mu bind ko lettre mu ne Thierno mu ne Baye tontu ko bi ko Baye tontoo ci la ko Baye yónni waale azkaru tarbiya ci lettre bi moom ci la ko sóobee ci la ko Baye sóobee dégg nga ginnaaw ba ko Baye waxee ne ko ñëwal dégg nga sama doom nga ñëwal dégg nga bokk nga ñiy doon sama mbóot bokk nga ñiy doon sama samay leer tamit dégg nga xoolal wax naa la euh, wiraasa Thierno daf ko am ci Cheikh Tidiane gis nga ni Cheikh Tidiane daje woon ak yonantu dégg nga ba yonantu bi na ko yow sama doom nga sama doom nga sama doom nga ñetti yoon Cheikh Tidiane yi ne yonantu bi waaw comme man sa doom laa man dégg na waa ay numaat yi di wax na ñoom ay surafaawu lañu ndax dëgg la ci yow lañ bokk wala déet mu ne yonantu bi du mooyu ko nangul koo tontu mun ne ci la xam li yonantu bëgg a wax radiyallahu anhu waaye da gis ne Thierno li Cheikh Tidiane amoon ci yonantu moom itam loolu la am ci ci Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu dégg nga tey képp kuñ ko waxoon tey dëgg-dëgg sama genre yi di nga funki jamono ji mel ni lu kenn xamul ku bàyyi wax ne kaay bokk nga ci ñiy doon sama mbóot ku bàyyi seedee loolu kooku kooku wax dëgg yàlla lu nekk mënoon na koo woote waaye lan la woote woon da daan wax ne man jaamu jaamaatu Cheikh Ibrahima la radiyallahu anhu dégg lu xam-xam bi bëri bëri bëri lu wilaaya bi rëy lu may bi rëy rëy rëy lu muy wax rek man jaamu jaamaatu Cheikh la radiyallahu anhu wax nañ mu nekk ak Cheikh musta jóg doxi soxlaay boppam musta am musta am moom su jógee xamal na ci ndigalu Cheikh Ibrahim ci la jógee xataa ba muy dem da di génn Medina di dem Fuuta da nga ci ndigalu alaaji Abdoulaye la woon moo ko yónni woon na dem da nga mu ñaan ko ndigal ndax mën naa jaar këram yaa ngi dégg nuyuwante ak waajuram bu jigéen xoolal lii xam nga lii mooy salbul iraada mooy nga nga rikki sa namm-namm koo xam ne soxlaatoo ndey soxlaatoo bàyyi soxlaatoo dara dëgg-dëgg ñi ñooy kumalul kumalul rijaali ñi ñooy ñu mag ñi dëgg-dëgg ci yàlla boo demee ci taarixu Cheikh Tidiane da nga fa fekk loolu lu mel noonu gis nga Seydi Mahamadou Tunis yi bi ma la doon wax ne yéeg na qurbaanatul uzma ba muy ñëw ci Cheikh Tidiane li mu bàyyi ci alal ci Tunis kenn xamul ni mu toll bàyyi këram bàyyi njabootam bàyyi lépp li ko indi woon Cheikh Tidiane wecci xaalis mu ne moom dégg na Cheikh Tidiane katu xaalis la rek mu ñëw ci moom ne ko damaa bëgg nga weccal ma xaalis mu ne Cheikh Tidiane dafa mer ba xonk ne ko génnal dëkk bi génnal dëkk bi mu gëdd ko mu ne mu daw génn radiyallahu anhu mu ne toog na ñetti fan ñi moo dugg faas ci la ñëwaatee ne Cheikh Tidiane baal ma mu ne keroog bi ko Cheikh Tidiane baalee ba ni génnee àddina génn ron Cheikh Tidiane radiyallahu anhu xatta alalam su ko soxlaay day yónnee ñu yónnee ko gis nga te loolu boo xoolee dangay ngay fekk fekkaat loolu ci baay fekkaat lu miraaran ci ay ci ci ci ci taalibeem kon ñii ñoo bëggoon dara ku bëgg dara dangay bàyyi dara dégg nga waaye euh, euh, taalibe yu bari sama genre yi surtout ñu bëri yàkkamti yàqal yàqal na leen ñu bëri xëy benn bis rek gis sëriñ bi nekk ci gàngunaay mu neex lool nga ne sëriñ bi ci boppam rek la ne sëriñ bi yëppam baax na mënuñu mënuñu mënta lijjanti kenn sëriñ bi toppatootut kenn fekk yow lijjanti woo fi sëriñ bi aw bàyyi xëyul rek lekk mis yu medina déedéet na nga fàttaliku bañ leen nettali bàyyi moog maa ibra faal ca seen potu gerte ga ca ca koosi fàttalikul bàyyi ca new ya moog ay taalibeem Cheikh Ibrahima Fall ak ñoom Seydi Alioune Cissé da nga ci seen lekkam neew ga ca medina bàyyi xëyul rek dëgg-dëgg yëf yi neex te pourtant mënoon na ko waaye li Cheikh Sane dem wax mu ne wilaaya ñetti xaaj dañ koy xaaj mu ne benn xaaj bi xalu safara la mu ne wilaaya benn xaaj bi xaaj bu njëkk bi mu ne xalu safara la dafa tàng moo tax wali yàlla bi soo ko fekkee ci njëlbeenu wilaayaam dafay metti dafay tàng ci moom mënta am dara day ñàkk dépense day ñàkk day feebar day ba ñu bari dañ ko ci xeebee sax naan kii bu xamoon dara dina dina mel nii fekk mu ngi ci digg wilaaya mu ne boo demee ba ci digg wilaaya nag mu ne mu ngi mel ni doom ak tàndarma da ngay commencé di ñam di mos dara di gaay naan mos dara nga mos dara muy neex mu ne waaye boo demee ba ci mujj wilaaya nag mu ne mujj wilaaya nguur la dëgg la boo demee ci wali yàlla yi bu ñu lay romb fii comme ay buur waaye fàttalikul ba ñuy dajeeg xalu safara si Ceerno itam radiyallahu loolu la daj dégg nga ginnaaw loolu mu nekk ci loolu ak sëriñam dégg nga ginnaaw bi ko Cheikh ma soobee mu nekk ci loolu ba ay soxnaay sëriñam ñu summi mu ne keroog bañ summee keroog la buub ay bagaasam yaa ngi dégg mu dem jëm ci Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ba mu ñëwee tamit ñu boole koog Seydi Aline Cissé dégg nga radiyallahu anhu xadimul xadara dégg nga mu dalal ko ci jumaa ji dégg nga nga xam ne foofu la defee askaaram foofu la defee léppam yaa ngi dégg yàggut rek ci la ko yàlla may fatu yaa ngi dégg ci kanamu sëriñam dégg nga Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu mu ne moom sëyroom dégg nga wala liñ tuddee ummahaatu sëyru dégg nga presque ci fukki fan ak ñaar ci la ko dox yaa ngi dégg mu ne bokk na ci li ko bàyyi doon posé question saani isnayni idhuma fi lgaari id yaqulu li saahibi la tahzan inna allaha maana ceerno mu ne eh, bàyyi ñim yar ñu bëri dégg nga su leen daan doxal ba am kóolute lenn ci seen xam-xam daf leen di posé question ci ci ci ci ci ay alquran boobu noonu dégg nga mu ne mu tontu tontu tontu tontu ba bàyyi na ko lii lu wër la ci man yaa ngi dégg radiyallahu anhu mu nekkoon koo xam ne ku dëgg woon la taalibi bu dëgg woon la ànd ak sëriñam wuruju ko benn yoon dégg nga ba nim jotee càkkute fam moom Cerno radiyallahu anhu ci Seydi Shuara noonu itam moo ko tegtal Euh, Cheikh Ibrahim ndax Cheikh Tidiane dafa waxoon ne mu ne wali yàlla soo àndee ak moom ci ànd boo xamante ne dëgg la mu ne su demee ba génn àddina tamit moom moo lay tegtalal fa nga jëm ba nga mën a jot sa càppateef Thierno indi na wax jooju noonu mu ne wax jooju noonu man dëggal naa ko mu ne ndax man ki ma tegtal Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu sama sëriñ la bu nekk ca barzax moom moo tegtal Cheikh Ibrahim loolu nag lu jar a bàyyi xel na gis nga ñu mat ñi ci yàlla ñépp seen sëriñ dunduñ ci zaaxir ñu mat ñi ci yàlla yonent moo gën a mat ñépp ci yàlla suñ doon wax ne am na sëriñ dañuy wax ne yonent yàlla Ibrahim la topp sëriñam moom la topp boobu parce que alquran moo ne wattabi millata abika Ibrahima xanifan dégg nga kon te moom dañëw rek yonent yàlla ibrahim ci jamono buñ doon xool Cheikh Tidiane yi sëriñam dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi mooy ki ko yar moom mooy sëriñam na génn àddina yàgg na wax nañ dëgg seen yonent moo génn àddina waaye yonent yàlla muhammad du luy dee rasulun dégg nga wa aadamu lam yakun wa yabqa rasulan daiman wa muazzama dégg nga lu tax fa nashatuhu kanziyatul xaqi waxdahu li daaka ataana qaasiman muqassama bi loolu amee Ceerno radiyallahu anhu Seydi Chouhra tegtal ko Cheikh Ibrahim kon moom itam sëriñam génn àddina ci zaahir waaye dëgg-dëgg ci baatin moo ko tegtal yoon boo ñëwee ci Cheikh Ibrahim wax na ne Cheikh Tidiane yi mooy sëriñam waaye mës na takkali ko moom benn géndeeku te pourtant loolu la Cheikh Tidiane itam waxoon murid yi law ihtajabtuhu taraktu an hadrati Cheikh Tidiane mu ne sama taalibe su kiiraay doxee sama diggante moom dinaa ko dàq sama hadara kon kooku mu ngi dund nekk lu dee taalibe bu nekk nag war na góorgóorlu dégg nga ba nga nekk ak noonu Cheikh Tidiane te bàyyi foofu la ñu bàyyi taalibeem radiyallahu anhu loolu moo tax mag ñu bari toppoon ko ànd ak moom bàyyi seen waajur yi bàyyi seen kër yi bàyyi seen lépp yaa ngi dégg ànd ak Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ginnaaw ba mu doxee Seyroom mu ne ci la bàyyi ci ijaazaam yépp da nga ijaazaal ko ba noppi yeewi ko biñ ko yeewee ci la dem Dakar ñëw Dakar yaa ngi dégg dugg fi xalwaam bi mu defee eh, xalwaam boobu da nga sëriñam eh, njaatigéem bi ko dalaloon ci kër gi bi mu gisee bàyyi radiyallahu anhu jëppal ci la ñëw wax ko euh, euh, euh, bàyyi ne ko wax ko Thierno Assane Deme radiyallahu anhu njaata gi Thierno bi mu gisee bàyyi mu ñëw wax ko Thierno ne ko sa sëriñ bi ñëw na gis naa ko këram jëppal ba Thierno ci la génnee ci xalwaam boobu noonu mu ñëw nuyu ji bàyyi Baye Dramé daf may nettali mu ne Thierno fu mu mës a dugg ci néeg bàyyi ku mu fa fekk bàyyi da lay génnee ñoom ñaar ak ñooy toog mu ne bàyyi sa nangu toog ak ceerno ak keneen comme masa fekk ci biir néeg bi da lay wax ne may leen ma ma wéet ak ceerno sa Deme bim gisee ceerno ci la wéet ak moom ci néegam mu ne ko ceerno jeex nga di lan moo la jàppoon mu ne ko damaa tëj woon xaluwa mu ne ko man maa la yewi woon waaye léegi yeweetuma la damaa bëgg nga dellu Medina nga toogal ma fa nekkal ma fa njaati gi képp kuy tukulóor moo tax may wax may wax séeréer yi askano ci ceer ma yépp man leen ay tukulóor ngeen li leen yóbbee ngeen nekk ay tukulóor parce que bàyyi ma waxoon ceerno ne ko nekkal njaati gi képp kuy tukulóor kon na ku ñëw ci moom tukulóor ngeen radiyallahu anhu waaye lan moo sababoon loolu taalibi bàyyi ku ñàkk ki ñaan nga xool bàyyi taalibeem yi ni àndee woon ni ñu woon mooy moo Cheikh Omar Touré foofu ca jumaa ja la doon dajeeg Ceerno di waxtaan moom ci xam-xam di waxtaan moom ci asraar di waxtaan moom ci lu nekk ci ay maarif mu laaj bàyyi ne ko ana sa ganu tukulóor bi mu ne ko kooku yeewi naa ko Mawlaa Cheikh Mor Touré ko mukk kooku gisuma toogaayu kenn ku ëpp njëriñ toogaayam ci sa Medina gi kooku fu mu mën a nekk nañ ko jëli wax na ne Baye radiyallahu anhu yónnee na fi ba Guinguinéo fu nekk yónnee na fa di wër Cerno ba ni mu dajeeg moom fii ci Dakar mu indiwaat ko keroog ba mu indiwaatee ceerno dégg nga ba ceer noo génne àddina ñibbi waatu lu dul ndigal bu mu am ci alaaji abdoulaye ci yónni bi ñu ko yónni woon radiyallahu anhu kon kooku mooy ki joxe woon boppam waaye ku jotoon càkkutéefam lan la ko eh, bàyyi waxoon liggéeyal ma ci sa kurus dégg nga bokk na ci lim liggéeyal bàyyi ci kurusam xalwa bu ñu tuddee xaasiyatul awliya 80 jours 80 jours wax nañ ne xalwa boobu bokk na ci xalwaam yu gën a doy waar ndax Thierno Mahmoud wañ nettali na mu ne benn xalwa boobu moom daf ko doon yóbbul añ ak reer ak ndékki mu ne waaye seetlu na Thierno ñeent fukki fan yu njëkk yi ndax ko daan indil lekk cerno di lekk mu ne waaye ñeent fukki fan yu mujj yépp mu ne moom mooy indi yépp waaye ni mu indiwaatee bool bi noonu lay delluwaatee bool bi te du gis cerno lekk ko radiyallahu anhu ñeent fukki fan koo xamante ne lekkut naanut nga nekk ci sa xalwa ñeent fukki fan ah li baay waxoon dëgg la wa fiiha rijaalun zawquhum kal xaatimi bàyyi mu ne sama medina gi am na ci góor ñoo xam ne sen seen zawq ci yàlla mu ngi mel ni ibnu arabi alhaatimi radiallahu anhu bal abu yazid xutbul ahwaal wax nañ ne toog na at nelawut naanu ndox abu yazid al bastaami ceernu 40 jours naanut lekkut wax na ne ci xalwaam boobu te du benn yoon la ko def def na ko miraaram def na beneen xalwa boo xam ne 72 jours la mu ne xalwa bi nga xam ne par ñeent fukki fan la nag kenn xamul lu mu ko def bu génnee ci bii rek dugg ci bii bu génnee ci bii dugg ci bii te loolu yépp si Ibrahima radiyallahu moom moo koy moom moo koy sant kii su amul fatul bara dëgg-dëgg kenn du am fatul akbar xam nga lu tax boo demee ci kannaasul maktum al asfar kannaasul asfar al maktum dañ lay wax ne xaasiyatul ulia 80 jours boobu képp ku ko tëju xalwa faw da nga nekk borom jagle ci tarixa bi faw di nga nekk boroom jagle ci tarixa bi di nga nekk xaas ci tarixa bi kon la xarwa li ko bàyyi waxoon radiyallahu anhu am nga cër bu bu bu rëy bu la yàlla jagleel ci tarixa bi kon suñ demee ba ñu ne moo laa Cheikh Alassane Dème moom moo feeñal lay la kat miya kon la ko sëriñam séedaloon mu ngi noonu te sëriñam seddal na ko lu baree baree baree bare bokk na ci gént gi mu géntoon mu ne dafa gént ay nit ñu am yaram am doole jàpp ko tëral ko xotti biiram génne organe ya nekk ci biiram mu raxas ko ba mu set wet ak meew ñu dugalaat ko ci biir ñu ñawaat ko biñ ko ñawaatee ñu yëkkatiwaat ko mu jóg mu ne ci la tiit ci nelaw mu ngi yàkkamti fajar jot mu dem gis baay waxu ko mu ne bi mu gisee baay bind ko lettre bi di moins baay Dramé may na ma lettre boobu baay mu ngi bind ci ginnaaw lettre bi ne ko mbégte mu rëy da nga képp koo xam ne nar ngaa nekk waarisu Muhammad yi gént gi foofu da koy gént baay teg ko ci ne ko man jaam bu xeebu bi noonu la ko baay waxee ci lettre bi dégg nga ne ko man sama njëlbéen ca koo si géntu naa gént gi mu ne yonantu rek la nekkut gént ci moom mu ne waaye keneen ku dul yonant bi boo bëggee doon mbootu yonantu faw gént gi di nga ko gént xuma nag ñu gént ko géntu chinois suba kenn ku ne créé gént ko <laughs> dégg nga ngir rek ñu ne doon nga mbootu yonantu sallallahu alayhi wa sallam Ceerno Baay moo ko dëggalal loolu xanaa kon kooku amoon na droit woote xutbaanitu parce que sëriñam moo ko seede loolu Baay moo ko seede ne ko waaris Muhammad yi nga waaye ànd ak loolu yépp dafa wax ne moom mu ngi ci roon sëriñam soxlaalu ko dara dara dara lenn la musa lekkal sëriñam ci dundam mooy junne ak juróomi téeméer te loolu ci sarax bu mu doon defal Mawla eh, Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ci la ko ko bàyyi joxe kon wali yàlla yi nettali seen karaama yi neex na lool waaye li gën a neex mooy ñu jàng seen jikko yi ñu jàng allah li gën a neex mooy ñuy jàngale wali yàlla yi nuñ daan àndee ak seen sëriñ si loolu dañ koy soxla ci jamono ji surtout ñun taalibe yi ngir lan ngir mën a jariñu ci wali yàlla yi ndax wali kat ah, du du caaxaan moo tax nga jëriñ ci moom du caaxaan moo tax nga jëriñ ci moom faw nga jël sa lépp jébbal ko ngir nga mën a jëriñu ci moom te loolu soo ko defee ci wali yàlla ànd ak pas-pas même su la jëriñut yow yàlla daf lay fekk foofu jëriñ la yow parce que sa pas-pas bi nga joxe kon nañu nag nekk ñoo xam ne dañuy dañuy nangu dañuy nangu ñun yàlla daf ñoo bind ci toppe yàlla daf ñoo bind ci toppe kuñ bind ci toppee da nga xam ne nag man dañ maa bind ci toppee Baay laa noo wax na ne wala wax nañ ne Baay wax na ne dégg nga man su ma yàlla bindoon ci xalimbaay toppe dégg nga Ibrahima Fall laay topp mooy Cheikh Ibrahima Fall taalibeem ndax yaram ndax jëflanteem bu rafet ak baay gis nga baay saa baam yi kenn maanaam buñ ci waxtaanee kenn rek ñeneen ñëpp da leen di gis ci kenn ki ñeneen ñëpp da nga leen di gis ci kenn ki dafa mel ni ñeneen ñi lañ lay waxtaanal loolu yëpp nag benn meen walla benn eh, weel lañ ko nampee ñoom ñu bëggante woon lañ xam nga su fekkoon ne dañ doon fiirante comme sama genre yi mu naan noo kii war ta nekk fii daal ci al Ousmane yi noo kii dafa jege sëriñ bi nga am problème ak moom lu mu def nga jëm koo ŋàññi jéem a dox diggante moom ak sëriñ bi kon dëgg-dëgg Cheikh Omar Touré du dem ci bàyyi ne ko gisuma toogaayu kenn ku gën toogaayu Thierno Assane dem ci sa Medina gi du ko def kon nañ jàngee ci ñooñu niñ bëggante woon te pourtant loolu la yonentu jàngale yonentu saabaam yi dañoo bëggante woon loolu la alquran seede ñoom muhammadu rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkufaari waaye ruhamaau baynahum bàyyi itam nii la yarewoon ay taalibeem ruhamaau baynahum dañoo bëggante woon dañoo yërëmante woon dañ doon dimbalante biir waaye après nag ñoom peut-être ñun ci la problème yi commencé xew xëccoo te li ci gën a bëri daanaka firante rek la wala daanaka iñaanante rek la te dëgg-dëgg loolu dégg nga lu ñàkkoon la ci taalibi Cheikh Ibrahima yi ridwanullahi alayhim su fekkoon ne amoon na itam fiiraangeeg wilaaya dëgg lay doon ba ku ci ñëw da xam ne lii fiiraangeeg wilaaya la fiiraangeeg wilaaya nag yàgg na ci xadaraay wilaaya loolu moom yàgg na ci am na ci pays Cheikh Tidiane am na ci yonent bi miraaran waaye ñu bàyyi ci xel moo tax wali yàlla yi su ñuy jàngale seen i na ñuy jàngale ni ñu daan àndi ak seen i sëriñ ni ñu daan xitmaale seen i sëriñ ngir ñu man leen roy ci loolu noonu da nga ñu jote ci itam suñu càkkuteef te loolu la ñu bàyyi jàngal la yanaalu maa indana illa bi sidqi wal mahabbati li nekk ci man kenn du ko jot lu dul ci dëggu ak mbëggeel yaa ngi dégg dëggu ak mbëggeel nag dégg nga moo laa sel seen ñaari mbagg yooyu la suufiyanke bi di naawee dëggu ak mbëggeel bu ñu la nettalee dëggug Ceerno di nga roy ci moom ci dëggoom googu bu ñu la nettalee dëggug Seydi Aliou Cissé di nga roy ci moom ci dëggoom gi bu ñu la nettalee dëggug Cheikh Omar Touré dégg nga di nga net di nga di nga di roy ci moom dégg naa bi bàyyi wootee ca Koosi moom mboolem mbaa këram la bàyyi sëtam moomu ko nettali ca Faas mboolem waa këram soxna yeeg ñëpp la fase mu ne parce que sëriñ bii dafa woote mu dem wuy ji sëriñ bi ca Koosi bàyyi laaj ko mu ne ko ah ñooñu de tabaarakallaa demuñ fen dañu dañ dañ lay tere rek bañ a dem te sëriñ bi yow yaa ñu moo tax. تم السلام فطلع